fi nga xamante ne mooy géejuwaay euh, fi nga xamante ne fii la Lac de Guiers 2 di defee open press am alors boo leen xoolee gars yi ni ñuy taxawee dernier réglage yi foofu la ñu nekk pour xool euh, di xaar pour xaar Lac de Guiers mu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy open press bi alors mbokk yi yéen ñi nga xamante ne yéen a ñuy seetaan waajal leen bu baax lépp loo xamante ne am na fii ci open press bi di ngeen ko seetaan a show ci seen chaîne Equivox TV noonu lay demee aussi ba ci biir combat bi vayu combat bi danañu ànd ak yéen daal di indil liggéey bu am am solo daw leen gaaw abonné ci sunu chaîne Equivox TV ndax ngeen di am lépp loo xamante ne soxla ngeen ko ci combat bi diggante Lac de Guiers ak Boy daal dellu si waat Issa. waaw ah, be day def. waaw ah, alhamdulilah. Lac de Guiers Boy Niang noonu lañ ko gisee. non ndam rek incha allah. Ah. am nañ confiance sunu mbër. ci kan Lac de Guiers. ndam rek bilaay walaay lawal foofu Boy de. waaw yow Boy Niang du dara. xañu kat la. xam nañ lépp. bilaay walaay. grand maa ngi ziar. la nga yëngu yi. sant mais Lac de Guiers ndam rek ah moom la ñuy supporté moom la faral dañu ay waa kër Balla Gaye lañu quoi xam ñaan yàlla rek nga xam nga na ñëw appliqué mu bañee taxaw di xaar xam nga na ñëw diriger combat bi daan ko defal ko affaire. boo ñaa est-ce que neex naa diriger. non boo ñaan moom du bëre tekkatu xel la moom mooy fële xale moom normalement sax moo war a diriger dans les normes mais comme na diriger xanaa na du diriger Lac de Guiers daan yaa ngi comprendre la dëgg dafa ñëw jàpp wala bu laajee sama duma ko ba pare balaa ma koy daan sax mu gën eh. boo ñaar dafa rëy lamit xam naa dafa pare ci ci Balla la jëm te ñun ñu seetaan lool du ñu seetaan loolu bon ah, sama gars maa ngi siyaar la jageer booy a ah rek lañ bëgg ñu eh. waaw booy ñaa de ah ñu ndam ay jinne de waaw ñoo gën a doon ay jinne mais booy bal la jegeer la jegeer la jegeer booy ñaa kan moo war a njëkk jël. nga ne. kan moo war a njëkk songu. la jegeer booy ñaa. ñun ñoo koy songu daan ko dañ koy songu daan ko incha allah rabi. booy booy ñaa neexut a songu de. waaw yow kii suñu cuuj la gars day koy. ñoo ko mën sëñ bi maa ngi siyaar. doolu siyaar. nga gisee combat bi. waaw combat bi teel a dem star rek def lu doon def yàlla may nu dabb sadu kuy si barke Sëñ Fallou te incha am naa si njot nan ko am. you.